waa inclusion normale la du exception waroo tabax ab bâtiment ba mu àgg te xalaatoo ñi am problème mooy laa ko war nga bala ngaa tabax bâtiment bi nga ne ah man de maa ngi defar étage waaye naka lay def ba yi mën fay yéeg dem ci kaw te du am benn problème nan def ba handicap yi a yéeg dem ba ci kaw mais Sénégal fi dañu tàmmoon di def bu ñu tabax rek tabax nu mu la neexee mais duñu duñu ñun way laago yi du ñu topp toppatuwaale mais tey yaakaar naa ne état Sénégal mu ngi ciy xalaat def ay jéego fexee ba tabax école boo xam ne nii xale yi daañu mën a ni njàccaar yi mën a demee classe am jàng silmax bi aussi mën a dugg classe am te du am benn problème waaye nag euh, dafa am lu des ndax digg naa ñu ne daara yi dañ koy moderniser fexe ba xale yi ba a lawaan yi di toog di jàng ci kër ga am ay sëriñ daar yu ñu formé waaye dafa des ndax sëriñ daara yooyu tey ji bu leen doon waxal luy baraay arab duñ ko xam kon nag li ma doon wax naan nar euh, norme la war a nekk inclusion bi mais warul nekk exception donc ñu lancé un appel état bi mu fexe daal ba sëriñu daara yooyu comme si léegi am nañu vraiment kuy jàngal arab fii arab braille ñu fexe ba sëriñ daara yooyu ñu formé leen su ko defee xale bu nekk fii di yalwaanati ñu mën laa yóbbu ci euh, ci daara yooyu te doo am benn problème. Mm-hmm. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw man maa di gërëm maa di gërëm jërëjëf jërëjëf.